asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi nuy seetaan te di nu déglu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ñoo ngi teew nag fii ci kër boroom Darou Mouhty ci kanam Serigne Cheikh Astou Faye Mbacké mi toog toogaayub Serigne Mouhamadou Habib ak Serigne Mbacké mi toog toogaayub Serigne Moustapha Maymouna gannaaw ba ñu jotee ndigal ci ki fi toog toogaayu ku tedd ki xadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba di Cheikh Muntaxa moom Cheikh Mahamadul Bachir ñu ñaan sunu borom yàggal ko fi lool mbàkke te wéral ko ak njabootu Serigne Touba gépp jot ndigal itam ci seen wayjur di Serigne Abbas Mbàkke mi toog toogaayu borom daarul moxti ci teewaayu ki yor kàddoom di Serigne Bachiru Mbàkke moom Cheikh Abdul Xuddus ak njaboot gi yépp mu teew fi itam sëriñ Abdou Khoudous moom sëriñ Abbas ak njabootu sëriñ Moustapha May gépp jataay bi nag li ko waral mooy màggaluk Arafa màggaluk Arafa sëriñ Moustapha May Muna mu ngi ko dooroon ci atum 1945 at mi sëñ Modou Moustapha fekkee ku tedd ki xaatim rasul Cheikh Ahmadou Bamba booba mu ngi ci wetu way juróom sëriñ Mahmadan ca Koso kon ren moo ci juróom-ñaar fukki at ak juróom ba mu ko tàmbalee màggal ñu teew fii nag fas ko yéene woote ndax dimaas lay doon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars dëppook kasu rajab kasu nag mooy ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru rajab kon dinañu jébbal kàddu gi Serigne Ousmane Ndiaye miy wax ci turu Serigne Modou Habib Diouf mi jiite fédération daayira yi sëriñ Moustapha Maymuna yëpp bu noppee danañu jébbal kàddu gi El Hadji Thierno Dieng mi nga xamante ni bii bernde yi jëm ci màggal gi te ñu koy waajale daarul moxti moo koy saytu di magum taalibe moom itam e, ci kër gi bu noppee danañu jox ki nga xamante ni mooy jël kàddu ci turu sëtu e, daayira sëtu sëriñ Moustapha May Maymuna yi muy sëriñ Cheikhouna Mbacké moom sëriñ Talla Mbacké wala Serigne Cheikhouna moom soxna Anta Bale moom Serigne Moustapha Maymouna bu noppee itam danañ jébbal kàddu gi Moustapha Bousso moom mooy jël kàddu ci turu turandooy Serigne Moustapha May yi bu noppee itam xam ngeen ni Serigne Modou Habib Gaye moo fi daan teew di jël kàddu ci turu daayira yi nekk ci diaspora bi bokki taalibe yi tey Moustapha May Diop mooy jël kàddu ci turu sëriñ Modou Habib Gaye ngir yëkkati ay kàddu mu jëm ci bokki taalibe yi nekk bitim réew su noppee nag ñu jëbbal kàddu gi ki nga xamante ni moo yore kàddu sëriñ Abbas Mbacké di sëriñ Bachirou moom Cheikh Abdoul Khoudous bu noppee nag kilifa jataay bi di sëriñ Cheikh Assou Faye mooy ñaan ñu yëkkati jataay bi kon dañuy jëbbal kàddu gi Ousmane Ndiaye. di yëkkati sunu kàddu ci turu jëwriñ sëriñ Modou Habib Diouf comme ni ñu ko baaxoo defee at mu jot mu ñu teewee ci jataay bi. di soññee nag suñu kàddu yi soññee nag jëm ci li nga xam ne mooy pàcc bi ñu féete muy wàllu daayira yi ñu ngi leen di soññi kem nañu lan den na na nañ leen baaxoo daan leen soññee rek noone lañ leen di soññee ci at mu jot noone yet lañ leen di soññeewaat ci at mii ngir bëgg ñu góor góorgóorlu bu baax ci mboolem doxin woo xam ne daan nañ ko doxe ñu góorgóorlu ci bu baax ni ko jëwriñ di baaxoo waxee ne boo yoree sa perantal boo ko xottilee mbubb ren bu dewee ne boo ko xottalewaatee mbubb ma nga ko loon daaw boo moytuwul dana manqué kon xam ngeen ne mbirum sëriñ bi moom bis bu ci ñëw day gën a gën a kawe bis ba ba ñu weesu kon nañu góor góorluwaat bu baax feddel laxasaay yi ñu ngi leen koy soññi bu baax jataay bi nga xam ne it ñu ngi koy woote at mu jot di ci daje dimanche tey euh, euh, ñu ngi koy jàpp dimanche le 15 incha allah di ko soññi mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi yëpp rawatina nag yi tënku ci fédération bi nañ ko daan soññee it ci diw gi nga xam ne baaxoon nañ at mu jot ñu ci daan soññi taalibe bu nekk mu barkeeloo ab litre ba lu man loole it ñu ngi koy soññee bu baax ñu ngi koy soññi mboolem taalibe yi yëpp ak soppe yi moo xam yi ci biir réew mi wala bitim réew ñëpp ñu ngi leen koy soññee bu baax a baax ngir ñu góor góorlu ci laxasaayu te taxawee na nga xam ne noonu lañ daan taxawee ci at mu renal noonee lañ leen di soññee li tàmbalee ci waajtaay yi bañ egg ca bis ba ba ci jeexantalu bis ba ba bagages yi dellu ba su boobaa sëriñ bi yeewu ñu ñu door a jóge ca uh, uh, fa fa fa fam ñu tegoon kon nañu góor góorluwaat bu baax fet di laxasaay yi te gën a dox te xam ne uh, yoonu murit moom ni ma koy faral di waxee diirub bi ngay gane jamono bi nga koy génne amoo fi benn bis boo xam ne war ngaa nopp lu baa nga wàcc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah dimanche lay doon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars deux mille vingt di màggalug arafa waaye di bis bi nga xamante ni bi itam ci la ñuy ñaanal Serigne Moustapha Maymuna ndax bi mu wàccee ab liggéey ci 2014 ki toogoon toogaayu borom Daaru Muuti di Serigne Cheikh Khady Mbacké moo ni woon bis boobu ni ko Serigne Moustapha May fonke woon nañ koo jël muy bis bi nga xamante ni ci lañu koy ñaanal kon màggalu arafa lay doon ga mu daan def ak ñaan gi nga xamante ni moom la ko sëñ Mbàkke ak njaboot gépp di defal kon dañuy jébbal kàddu gi eh, El Hadji na jenn lañ ko waroon a jox waaye jox na ndigal doomam Habib Diène ngir mu yëkkati ay kàddu ci turu waajuram kon ñu teew la ko. ci turu Baye Thierno Diène mu wax ne mi ngi soññ mbokk taalibe yi nga xam ne màggalu arafa su masaa ñëw dañuy defar ay xéewal fii ci Daaru Musti di ko yóbbu arafa. wax na ne mi ngi soññ Habib Diène ginnaaw moom ak sëñ Modou Kontey ak Ndey Fatim Diagne moom Baye Moustapha Diagne ak Modou Wadd ak Habib Thiam ak Ablaye Faboy ak kër Baye Ndiasse Silla yàlla na ko yàlla dolli leer ak kër Baye Moustapha Ñaan ak euh, sëriñ kafe Silla ak Baye Demba ak Aljuma ak Habib Silla ñu koy wax Galas ak Ale Thiam ak Tafa Diène ak baay Habib Sylla ak sëñ Mbaye Guèye Sylla mii nee na nag ab àndandoo nag dafa am àq ndax daaw xaw nañoo tardé bi ñuy yóbbu añ yi ndax ñii dañuy pare 11h ñii pare midi ñii pare une am ci ñoo xam dañuy dem ba 2h wala 3h mu bëgg nag ren ñëpp ñi nga xam ne dañuy defar ay xéewal di ko yóbbu su midee na fekk ñëpp pare. ndax koo xam ne ki fanaanoo nga màggal gi war ngaa teel a jublu ci li jëm ci màggal gi ba su midi jotee. ñu mën a dajale euh, xéewal yi teg ko ci oto yi yóbbu ko di fàttali tamit ne daaw sëñ Mbaye si la waxoon na ko ne képp ku nga xam ne kii am nga yéene liggéeyal sëñ Moustapha May maanaam weesuwul nee na ci màggal gi mën nga cee liggéeyal mu safaa May kon képp ku nga xam ne am nga ci yéene pour def ay xéewal nga wax sa tur ñu bind la su ko defee ñu boole la ci programme bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. jërëjëf Modou Habib Diagne euh, noonu mu ko soññee kon la ma waxoon daaw rek ay gaay a ngi fi. koo ci ni sëñ Moustapha may mu mbëkk miir bi boo ko ne maa la gën a gëm sëñ bi mu xeex ak yow te sëñ bi jaralu ko togg ab añ looloo laa ni teguwul fenn kon nanu góor góorgóorluwaat kenn ku nekk xam ni këru sëriñ gu ne la fa baax dong yaa ko fa def kon lii nga xamante ni Alaaji nu Jenn moo koy jiite muy togg añ yi li Ousmane Ndiaye wax léegi waroon nañu at mu jot am añu yokku kon dañuy jébbal kàddu gi sëriñ Cheikhouna moom soxna Anta Bale moom Serigne Moustapha Maymouna mooy yëkkati kàddu ci turu sëti sëñ Moustapha yi. di yëkkati kàddu yi ci turu sëti Serigne Moustapha May yi ci njiital Serigne Cheikhouna moom suñu xalil di leen fàttali bésu xasida bu ñu baaxoo amal njëkk màggal gi ren mu war a tolloog alju aljuma ñaar fan ak ñeent ci weeru Kazu Rajab 1441 dëppoog le 20 le 20 mars 2020. ñoo ñoo lañ ko yëgal bu baax di yëgal mbokk jullit yëpp ak mbokk tere bi yëpp di ci sàkku seen taxawaay seen teewaay na bés la boo xam dañ koy def ngir waajal ko màggal gi ñu koy def nag ci teewaayu Serigne Hamsou Mbacké moom Serigne Chouaïbou di ci sàkku mboolem di ci sàkku teewaayu mboolem mbokk jullit yëpp ak mbokk tere bi yëpp day ndigal nag loo xam ne dañ koy jot ci sëriñ bi ndax moo ko daa def waaye gannaaw màggal gi jàll nañ joxe ndigal ñun sët yi ñu war koo taxawee di ko def te sëriñ Tuubaa te sëriñ bi daa waxoon ne laa tafaloo shay'an bi ghayri idni fal idnu shartun fi qabuli shay'in ndigal mooy tax mbir mu mën a doon ak na nga soññ mboolem am kon ku nekk xam ne bis bi la koy jegal ci yow lay jógee bu ku ne gisee noonu rek danaa tax kenn a taxawee kon loolu la ñuy soññ ci mbirum ci loolu la ñuy soññ mboolem mbokki sët yi dañuy soññ wàll nag mboolem mbokki taalibe bi na liggéeyal Sëriñ Tuubaa moom day yaatu mën na ko digal kenn ba ñenn waaye kenn ku nekk da war a xam ne liggéey la boo xam ne kenn wala caa man suñ taawam ku ñu nekk liggéey ko liggéeyal ko war na la kon ñun lañ ko sant ñun waaye nag dañ koy yaatal ci mboolem mbokk jullit yëpp ak mbokk talibi yëpp kon ñoo ngi sàkku teewaayu mboolem mbokk jullit ak mbokk talibi yi di jégalu kàddu yi bu baax a baax waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne na moom soxna Anta Bale moom Serigne Moustapha Maymouna kon dañuy jébbal kàddu gi. sëriñ Moustapha buso moom sëriñ Mamoun buso moom sëriñ Mbacke Kanni waajuram duppee ko sëriñ Moustapha Maymuna jébbal ko ko mooy yëkkati kàddu ci turu turandooy sëriñ Moustapha Maymuna kon ñu teew la ko. mbokk yi ñoo ngi nuyu mboolem mbokk yi ñuy teewlu yépp di ñaanal sunu kilifa yi fi teew suñ borom yàggal leen fi te wéral leen di yëkkati ay kàddu yoo xamante ne. ñu ngi ko yëkkati ñu mbooleem tur turandooy Serigne Moustapha May yi bàyyi ko ci Serigne Moustapha moom Serigne Cheikh Assou Diop ak Serigne Moustapha May moom ñu wax ne ñoo ngi soññi mbooleem turandooy Serigne Moustapha May yëpp rek yi nekk ci réew mi ak yi nekk bitim réew ñu xam ne bisub Serigne Moustapha May bii turandooy Serigne yi ñoo ci war a jiitu lépp luñ fay def ñoom lañ koy defal kon nag ñoo ngi soññi mbooleem fa ab turandoo nekk rek mu xam ne bis bi sunu bisa su jagee ñun la jagal su melee na ne itam ñun la ko melal kon nag bis boobu yi nga xamante ne moom dañuy defal Serigne Moustapha mi di ci fàttali ko ko ñaanal sunu bisu boppa kon nag foo xamante ne ab turandoo ma nga fa rek na takk laxasaayam ñëw teew ci bis bi addi yi nga xamante ne nag ñu ngi koy laaj ñoo ngi xamle ne képp koo xamante ne rek mi ngi koy joxe bu jokkoo ak Serigne Moustapha Mbacke rek dina ko wan yoon wu nga xamante ne fa la fi la war a jaar dañu egg fi mu war a àgg ndax bis boobu sunu bis boppa ginaaw loolu itam sëriñ Moustapha mi ngi soñ mi ngi mi ngi jot ndigal ci sëriñ bi muy xamle ne bisub sëriñ Moustapha mi li ci war a jiitu mooy alquran ak xasida ak salaatu ala nabi mu wax ne mi ngi soññi mbooleem daaree alxuraan yëpp rek ñu nekk ci daarul moxti ak yi nekk Touba ñëpp ñu ngi leen di fàttali bisub sëriñ Moustapha mi boobu nga xam ne alquran moo ci war a jiitu kon ñoo ngi koy fàttali ñëpp rek di ñaan suñu borom yóbbu ñu ci jàmm ñu lépp loo xamante ne ñaan nañ ko rek suñu borom nangu ko. ci barkab xaari Moustapha. jërëjëf Serigne Moustapha Bousso xanaa ñuy fàttali rek ni bisu xasida boobu nga xamante ni Serigne Amsa tu Mbacke moom Cheikh bu Mbacke moo koy jiite bëccëg lay doon ci bëccëgub ajjuma bi lay doon di ñaar fukki fan ci weeru mars kon ñu ngi koy fàttali ñëpp kon dañuy jëbal kàddu gi Moustapha May Diop mi nga xamante ni moo yëkkati ay kàddu ci turu Serigne Modou Habib Gaye di kàddu yu jëm ci bokki taalibe yi nekk bitim réew kon ñu teewlu Moustapha May Diop. Eh, mbokki taalibe yi kenn ku nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant eh, di jiital nuyoo bi sëriñ Cheikh Soy mi nga xam ne mooy suñu kilifa jataay bi ak sëriñ sëñ Mbàkke ñu ngi leen ziar ñëpp ak mbokki taalibe yi ñëpp ñu fi dajee rek eh, di yëkkati kàddu rek si turu diaspora bi xam ne sëñ Mour Abi Gaye moo fi na a waaye maa fi teewal di kàddu di soññee rek di soññi mboolem ku nekk si diaspora bi ñu ngi leen bu baax di soññ suñu bopp. Eh, di mag màggalu arafe gi eh, di ko yëgal ñëpp rek maanaam kenn ku nekk sëñ Moussa May eh, lim la defal mënoo ko fay ah dañuy góor rek waaye mënuñu si dara waaye kon kenn ku nekk rek ñu ngi lay soññ bu baax nga jàpp ci si diaspora bi ñëpp rek ñu ngi ziar ñëpp rek di jégalu jërë ngeen jëf. jërëjëf Serigne Moustapha May Diop kon dañuy jëbal kàddu gi Serigne Bachirou Mbacké moom si Abdoul Khoudous mi nga xamante ni moo yore kàddu njabootu borom Darou Mouhty kàddu yii la yëkkati ñu teewlu ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp fu waay mën a nekk ginnaaw bi ñu nuyoo sëriñ bi sëriñ Cheikh Astou ak sëriñ Mbacke mi nga xam ne moo jiite liggéey bi nga xam ne moo nu fi dajale di indi kàddu yoo xam ne ak ndigal bàyyi ko ci sëriñ Abbas moom mi nga xam ne mooy sunu borom Darou Mouhty di xalifatu Cheikh Ibrahim ni euh, ñu ko baaxoo doon defe aadala rek ñu di ko fàttalee ndax naka jëkk daanu ñu fi yabal ñu ñëw teew ànd ak euh, sëriñ Mbacke ci teewaayu sëriñ Cheikh mm, ndax fàttali bokk yi bis bi nga xam ne mooy bisub sëriñ Moustapha Maymuna ak guddik euh, kasu rajab ji nga xam ne naka jëkk da ko baaxoo woon a def ñu boole ñaar yëpp jagleel ko ko àggale ci liggéeyam boo mu mel ne kon wenn daj dang ci jëm ñaari picc ci niñ koy léebee kon nag jàpp naa ne sëriñ bi moom muy sëriñ abas kenn ku nekk xam na digganteem ak njabootu borom Daaru Muxti li ko ci war ak fenn fu ci ne la fay yëngatu jàpp na ne luñ fay def moom lañ ko defal te loolu mooy li am rawatina nag bi nga xamee ne diggam ak sëriñ Mahamadul Habib kenn werante wu ko muy dox di dox ba agsi ci sëriñ Mbàkke mii nga xam ne laata muy doon borom daar Daaru Muxti moom sëriñ Abbas kenn ku ne xam ne seen diggante te loolu itam lu ci am solo la kon sëriñ bi mu ngi lay feddali loole di ko seeral sëriñ Cheikh di bëgg daal képp koo xam ne yaa ngi aju ci borom Daaru Muxti mm, bis bi buñ ci àggee soo ko manee na nanga dem mu Arafat jàppale Serigne Mbacke ànd ak moom ci liggéey ba nga xam ni moom lañ fay def ci bépp xeetu liggéey liggéey rek bu ñu ko dee wax ci diine mi ngi tàmbalee ci jaamu yàlla na ñaan jàng alxuraan ak lépp loo xam ne dina jariñ aji dawlu loolu li mooy jëmmi liggéey bi ci boppam loolu nag fu waay mën a nekk def ko waaye ku ko mën a teewe ci biir mbooloo ma nekk mooy la gën a ti moo tax sëriñ bi bëgg képp ku ko mën ku nekk na nga ànd ak sëriñ Cheikh Assou Faye ànd ak sëriñ Mbacké ci liggéey boobu xam ne mooy liggéey bi jëm ci yàlla jëm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sëriñ Touba waaye ñu jaare ko ci buntub sëriñ may Moustapha Maymouna mi nga xam ne bunt la boo xam ne yéesul benn bunt ci bunti sëriñ Touba yi ndax kenn ku ne xam na ni mu taxawe woon ci diine ji ak ni mu taxawee ci bokk gi ak ni mu taxawee ci njabootu borom moo ti kenn ku nekk seq na koog yow jëflante na koog yow yaakaar naa ne loolu kon bu fekkoon ne tey day bor bu ñuy fay rek warees na ko koo mën a fay jaarale ko ci njabootam gi kon lii mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg daal képp ko yaakaar borom moo ti nga xamee ko noonu jàppe ko noonu ànd koog ñi nga xam ne ñoo koy taxawal muy sëriñ Mbàkke ak i rakam ci gannaaw sëriñ Cheikh Assou kon bu ma teewee mu ànd ak Abdul Xudus doomam mel na ne njaboot kër sëñ Abbas yëpp mel na teew nañ te lool it mooy li nga xam ne nag mooy li li war a am kon nag euh, sama ko dee gàttal mooy dama xam ne bis la boo xam ne mënees na ci am yàlla ak yonante bi ak ak Serigne bis la boo xam ne mënees na ci am borom Darou Mouhty ak Serigne Mahamadou Habib ak Serigne Moustapha Maymouna mi nga xam ne ci moom lañu koy jaat loolu ko ko dajale nag sa xel mën naa dal tey sa xel mën naa dal ëllëg kon ku mën na nga ñëw te yàlla indi ñëpp ci jàmm ñu nekk fi ci jàmm ñu delluwaat ci jàmm te bàyyi fi jàmm lépp lu ñuy dégg ci luy nuru ak loraange yàlla bu mu fi agsi ci barakatu nabi sallallahu wa sallam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi kon bis baa ngi noonu dimanche lay doon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars ca Arafa ñuy waaj a jox kàddu gi nag kilifa jataay bi di Serigne Cheikh Astou Faye waaye ñuy fàttali bokki taalibe yi ni leen bëgg-bëggu Serigne Moustapha May ba nga xamante ni bii day gannaawam la ko jëmm jii di Serigne Mbacké tàmbali muy jumaay Arafa ja ña nga koy soññe li ma doon wax léegi. añ yi nga xamante ni dañu koy togg. di ko yóbbu ci bisub Serigne Moustapha May bi wax naa ni bari nañ lool ñu yaakaar Serigne Moustapha May man ko te mosuñu koo def jumaay Serigne Moustapha May jiitam Serigne bi la mu waxoon ni mooy sas wi góor gu ne ñeenti junni jigéen ñaari junni waaye tey ab lim boo xamante ni xam nañu leen ñu yaakaar Serigne Moustapha May te ba ñu tàmbalee jumaa ji ak léegi waxuma la ñeenti junni waaye ñeent fukk sax defaguñ ko fa loolu nag nax sa bopp la ndax Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké yàlla na nu ko sunu borom fayal bu nu daan soññ ci addiya daana wax ni jigéen sax day ku ko bëgg dangay def ci moom dara kon yaakaar ajjana ci sëriñ bi te bu sëriñ bi wootee buñ nee barki sëñ Moustapha May nga dàq ko ñëpp te bu ñu wootee ci sëñ Moustapha May du la ko jaral loolu naxoo kenn sa bopp rek ngay nax kon mbokk yi nanu delloo si waat sunu xel xam ni sëñ Moustapha May day wàcc na moom day mbàkke la ko waroon def na ko kon bu fekkee am na ñu des nun taalibe yi lay doon kon nanu góorgóorlu ci bésub sëriñ Moustapha May bi nanu góorgóorlu ci jumaay arafa ji kon dañuy jébbal kàddu gi sëriñ Cheikh Assou Faye Mbàkke kaddu yi la yëkkati di la wax ne nanga nu lu sunu cant ak sunu nuyoo ci sëñ Abbas mi la yebal ndax tey yaay jëm te kenn ku ne bu yónnee ndaw ndaw loola jëmmi ko ko yónni lañ koy xoolee palaasu euh, ba mu toog it la xoolee ndaw la kon noo ngi koy sant di ko gërëm bu baax njaboot gépp nga koy sant fàttewul diggam ak sëñ Modou Habib fàttewul diggam ak sëñ Moustapha May itam te ba muy ànd ak sëñ Modou Habib booba metti na lool waaye teewul dafa taqoog moom guddi ak bëccëg ah balaa sëñ bee reer day wax Thierno Dieng mii wala mu ne Touba Seen demal woyu ko lu guddi guddi nga xam ne sax am na boo xam ne day taw Thierno mii lay bal ne ko woyu ko nga xam ne boo taw taw baa ngi sóob mu dem woyu ko. loolee nag sëñ Abbas bàyyiwu ko bàyyiwu ko ba fii mu nekk ba mu ba mu dégg nag borom daaru bi mu ko dégg it dafa mel ne loolu la gën a feddali ndax boroom daaru bu jóg dem ci màggal jafe na lool te def na ko ci arafa loolu lépp nag digg mag sëñ Modou bi ba taxoon mu def ko ah kon nag ñu ngi na nga nu ko santal te gërëmal nu ko di ko xam nga nu ko xamalal ne ko ay taalibi rek la nu njureel gi yeeg bokk geeg lépp dañ koo jaay jëndee ko taalibi baatam rek la ñuy déglu lu mu santaane lu nu ca mën danañ ko def lu nu ci mënu danañ ko jëm ne ko foofu la nekk la ma ko waxoon keroog ba mu doonee borom daru nu àndandoo nun ñëpp mën na ko njaboot gaa ngi ay taalibe rek lanu ceerno rek lanu yaakaar te yaay ceerno tey te soo ko matul doo fi toog waaw loolu sëñ Mouride moo ko waxoon boo ko matul woon doo fi toog kon mat gi nga ko mat ba toog fi nag moo tax ma ne la taalibe yaa ngi nun ñëpp a ngi nii loo santaane nu def loo digle nu def xanaa ñaanal leen rek kenn ku ne yàlla jàppandil la. li nga ci yéene ak li nga ci bëgg a def ndax bis bi moom day jàkk kenn mënu koo tey jàkk ndax boroom a ko jagal ba mu ko tàmbalee léegi ci yaari ganaar la tàmbalee woon yaar yaari ganaar yoo xam ne yii ay taalibe ko ko jox mu mu rey ko ca koso waaw euh, ku ñuy wax bolle Touré moo joxewoon woon genn ganaar ga genn ganaar ga alluy si la te dañoo dox ba bii bi benn bi ñu dox ba njumin soo ko indi ci la ko tàmbale ba léegi ay nag lay doon mbirum sëñ Moustapha May moom ku ci dugg ku ci dugg lépp day jag mooy lii mbay wax ci jumaa ji jumaa ji ku ci defit day jag rek ku ci defutit day jag kenn tënnewu ci waaw la sëñ bi waxoon ne la sëñ Fall waxoon ne dem leen ci jumaay daaru ji tabax day àgg de bañoon tabax ci jumaay Touba ji de yàkkamte nañ ñu songaat ko bañ tabax ci waaye jumaa ji it ku ci defuti day àgg mbirum sëñ Moustapha May moo taxaw ndax lu mu am da koo jaayanteeg yàlla jox ko bindee fi yàlla kenn ku ci nekk boo toogee. sa waajur toog sa waajur dana fàttaliku loo xam ne lii li la sëñ Moussa may defal boo munta leble war ngaa mën a fay bor loolu mooy ji mooy jikko yi sëñ Moussa may kenn ku ne def na ci yow loo xam ne da ngay dem ba yàgg nga yéemaat yàlla wala nga tëdd ba guddi nga yéemaat ko te xamewu ci kii ak kaa sëñ Moussa mbindeef yëpp la fi nekkaloon du mën a jullit yëpp ndax yéefar sax ñëw na fi ñaan ko ndimbal mu dimbali ko yéefar ñëw na fii ne ko damaa bëgg nga defal ma intervention sàngam mu def ko foofu la nekkoon kon fokk yàlla dana ko fay ndax daa féetewoo ak nit ñi te suñu borom dañ ko ne ku yonte bi da ko ne ku la gënal ci nit ñi mu ne ko ki gën ci nit ñi te sëñ Moussa kenn gënu ko ci nit ñi jàpp ne lu mu am lu ne nit ñi la ko war a jox kon nag na ngeen góorgóorlu waat te fetliwaat seen laxa saay te xam ne sëriñ Moussa may nun ñëpp moom la yaakaar muy sunu sëriñ nan ko jàppaat bu baax te feddali ko bu baax te xam ne it liggéey bee muy liggéey muy jumaa ji moom taxut nun ñii rek a tax lu ca waaye def sa bopp nga ko defal ku cee defe nag dana àgg ku ci defuti dana àgg màggal gii ak ñaanam gi itam lépp day sotti lépp day àgg mbiram dara du ci tag kon nag góorlu te am gëm te laxasaayu te jàpp ci la ñëpp war a def rek waaw waaye su ngeen toogoon ne cell yi ñeneen danañu def lépp danañ ko àggale danañ def lépp di di leen ñaanal nag seen yëf yëpp jàppandi te kenn ku ci nekk li nga ci defoon daaw boo ko seetloo am nga lu ko ëpp ren nun ñëpp nag kon kenn ku noon na seetlu ku ci defoon ku ne rek la nga defoon daaw am nga lu ko ëpp noonu nag la biram di mbokk yi kon bis baa ngi noonu dimanche lay doon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars ci at bii nu nekk di 2020 nu ñaan képp koo xamante ni bii teew nga arafa lépp loo fa sàkku ci lu baax yal na nga dajeeg loolu ci darajey ku tedd gi xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba darajey borom Darou Mouhty darajey Serigne Moustapha Maymouna wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu